way leen di teg seeni gër di dégg seeni nopp ci seen bu mag bii di ñi ngeen tv ak ñi ngeen tv moomeelu askan wi ñi ngeen tv kum ko tàggoo ak yéen dee leen abonné tey partagé bés koloosu notification bi ngir lépp lu ñu dugal ngeen njëkk ca jot ak ñi ngeen tv moomeelu askan wi xam naa ba tey umute dina waral nit ki doom wërsëg te comme ci xaalis dañu waxtaanee nit mën nay bind di sangu te fekk tëjoo ko jàpp kàkk ràkk te ci biir kàkk ràkk jooju nag des fois léeg-léeg mu tax tukkulóor yi léeg-léeg mu tax bët des fois mu tax làmmeñ des fois mu tax njuumte ndax man ngay jéemal sa morom moo xam dala ëpp ci mbukaay wallahi boo paree yow yaa suulu waaye moom du suulu loolu tamit day am ok wala léeg nga jàppanteeg nit mu mu xaw a am fu mu lay bëgg a dugal waaw bëgg bala ka ko mbir defal li ma lay bëgg wax mais mbir mu doy waar la loolu nit waru ko gëj di sangoo koo xam ne mënta bind wala mu taay lu mu bind man na ko def léeg-léeg da nga génn leget gu bees leget gu bees ñëw nga wut guro juróom ñaari doom guroy xonk juróom ñaari doom guroy weex ak juróom ñaari sondeel ak juróom ñaari nen nga def ko ci biir leget gi fanaanal ko sa néeg bi nga tëdd soo xëyee nga ko fab nen yeeg gura geeg leget bi yëpp sarxendoo insha allah rek boo ko defee saa borom mën na laa dimbali bu fekkoon da nga nekk borom yaakaar ju tas saa bu sëñ borom dogalee ñu jëfandikoo gura gi lépp loo xam ne da nga ko doon séntu muy muy muy muy muy tas saa borom mën na la ko saafaraal bu fekkee ab liggéey la gàllankoor ba xëy na say mbir ta dox saa bu ñu tojee neen yi jëfandikoo ko suñ borom mën na laa lu nekk ci yow lay waaye su fekkee say mbir dafa yëkkatiku maanaam mi ngi dox waaye koñ bi nga nekk yaa ngi sant ni sa liggéey mi ngi dox waaye amoo fa tur jógul say leer sa dara leeru daal sondeel yi sa borom mën naa dogal bu ñu ko jëfandikoo maanaam ak leeraa nga am ci seen lu bare bare te ña la xamutoon suñu borom mën na leen dañ ñital ñoom bañ ko fu yër la ba xam yaay kan surtout commercante bi commerçante bi ba fi sëriñ bi et cetera et yoon boobu beneen dimension la moom ci xeetu ku tëju ba pare bëgg a ubbiku